waaw comme ni ñu la koy waxoon sànq rek ginnaaw ba Serigne Donga Thiaw jeexalee moom i jiite way jigéen ñi moom i jiite góor ñi ñu fas yéene jox suñu way jur bu jigéen mi nga xam ne moo jiite liggéeyu jigéen ñi yëpp ñu fas yéene koo taalal suñu micro mu tudd Soxna Nda Gueye doon jàmbaar lool joo xam ni képp ku nekk ci kër Serigne bi rek nattabli woo ak njàmbaaram mu jiite ko ci ñëpp jiital ko te nangul ko te doyloo ab liggéeyam ngir ak pas-pasam ak pastéefam di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu may ko fanu gudd bu ànd ak wér ba lépp lu mu yéene liggéeyal Serigne bi rek mu àggale ko ci coobare boppam kon bu ko defee ñu soxna Nda yi mu présenté wu soxna Nda bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah Serigne Mbacke ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare di jiital ci siyaar bi Serigne Mountakha Bassirou di siyaare Serigne Abdou Khadim Ndiaye xel fi Serigne Ndiaye di commencé bi sallallahu daan defee ci kër Serigne Mbaye Ndiaye comme ñu ngi ko waxee noonu rek ñu gis ni waañ wi ren dafa mel ni. xëy na sax daan na am waaye mel na ne ren gën naa am ab changement ci mobilisation jigéen ñi ak mbooloo mi ni ñu ni ñu engagé woo ren ñëw fii ak euh, ñu laaj ba xam nan lañ pro nan ngeen ko programmé ak nan ngeen préparé ci xéewal yi nga xamante si ni fas nañ nañ ko yëkkati ak yéen lan mooy seen taxawaay ci waañ wi comme niñ ko daan defee rek ndax euh, dafa nekk ndigal loo xamante ne ñu ngi ko jëlee woon ci Serigne Baye euh, suñu waajur doon ko doxalee ak ñoom ba mu egsi ci suñuy loxo ñuy ñaan yàlla suñu borom mu yàgg ndax euh, boo gisee gàmmu gol bi ñu ngi ko jëlee ci Serigne bay Ndiaye Gol bi mu daan ko defee ji Louga ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba tey jii nii mu ñëw ci suñuy loxo ñu koy defandoo ak euh, Serigne Cheikh Ndiaye suñu borom yàlla def mu génn àddina ñu jaar ci Serigne Sang ba ñu ñëw ci Serigne Abdou Khadir Ndiaye ñu. di ko defewaat comme noonu ko daan defee ak ñëfa jiitu mobilisé wu comme ni ko daayira yi di defee yëpp euh, yoonu murit ni ñu koy defee waa kër sëñ bay Ndiaye Gol bi di ko defee ci guddig yonente bi salallaahu alayhi wa ndax boo xoolee euh, mobilisation bi ni mu demee nii ci waañ bi at mu jot euh, dañ koy gën di man dañ koy gën a mobilisé wu di ko gën di fu suñu borom ñu ko gën di fulal ndax lépp luñ ci def rek xem nañ ko boo gisee waañ bi mu demee ak ni mu daan demee da ngay xam ne ni yoonu sëriñ bi amul tànki kanam te amul tànk ginnaaw tànk kanam la am euh, ñu ñaan yàlla suñu borom mu jàpp ñu ci bu baax a baax ba ñu bàyyi ko suñuy ay doom ñoom it ñu di ci jàpp bu baax a baax. incha allah incha allah rabbi waaw comme comme taxawaayu comme loolu nga wax noonu am na solo kon lan nga mën a ñaaxee xale yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ci ci détermination bi ñu ci ànd ci suba ba tey ku ne gis na naa ñu nim tàngee ak taal yi ni mu te daanaka koo ci xool lim soree taal bi daanaka bëriwut ñu fas yéene engagé woo ngir ànd fas yéene liggéeyal yaa rasulallah ci guddeem gi léegi lan ngay ñaaxee xale yu jigéen yi nga xamante ni dañoo bàyyi lépp ñoo toog ci waañ wi yan kàddu nga leen di ñaaxee ak ñeneen ñi nga xamante ni donte yéene woon nañ ko te am ngànt yan kàddu nga leen di wax waaw xanaa ñuy góorgóorlu bu baax te xam ni lépp loo fi gis tey jii nii bu la rawee ëllëg yàllaa xam te suñu borom moom ay mbiram du tàggoo moo tax guddi yonent bi giiroo la ndax comme que dewen xamul dina la fekk am deet bu la fekkee ren loo ci man rek nga jàpp ko ci ndax guddi yonent bu moom amul remplace bu la rawee jeex na moo tax nag ñun ñi nga xamante ni toll nañ ci ñu ngi ciy déem suñu kéemtalaay kàttan waaye képp koo xamante ni xale nga tim nga bàyyi xel ne lu la weesu raw na la te doo ci jotaat moo tax buñ ci tolloo lépp loo xamante ni dañ ciy liggéeyal sëriñ bi muy guddi gàmm muy màggal képp koo xamante ni xale nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mobilisé wu jàpp ci sëñ bi te xam ne ñun yoonu murit amuñu lu dul sëriñ bi amuñu lu dul yonent bi kon nag buñ ci tolloo nañ ci def suñu kéemtalaay kartan euh, jàpp ci bu baax a baax te xam ne ak fayam moom kenn amul remplaçant moo tax nag xale boo xamante ne nii koo xamante ni bàyyi nga xale sa kër dee ko indaale muy nekk ci sëñ bi di ci dund di ci màgg di ci ñaq ndax ñaq nag moom amul amul amul du dellu ginnaaw ñaq fa mu jóge moo sori moo tax bu ñuy ñaq nañuy xam ni ñuy ñaqee te bu ñuy dugg ci waañ bi it nañ ci ànd ak yéene nañ ci ànd ay pëstéef ndax yéene dafa am solo te yéene moom boo ko xësee ba def rek moom moom suñu borom nangul na la lépp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te képp kuy xale yit ngay ñëw di jàpp ci liggéey bi di jàpp ci sëñ bi te xam ne nag mag ña fi nekkan rawee nañ ñu lu bari lañ ñu rawee mooy ñaq takk der jàpp ci sëñ bi topp ndigalu sëñ bi bu la santee nga def bu la teree nga bàyyi te dañ naan si wa jot ndigal loolu nag mooy suñu problème mag ñu njëkk ñi dañ ñu woon si wa jot ndigal ba jëfee ko ñu nit xale yi buñ ci tolloo nañuy dimbali ngir yàlla ni si wa jot ndigal jëfee ko ndax ndigal nag moom suñu borom moo ñu koy fay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 di ko jaarale suñu site bu mag bii muy si Xewga TV ñu fas yéene dundal fii guddik yonent bi sallallahu alayhi wa fii ci Golbi Ndiaye tey nag ñu ñëwoon àndan nag ñëwoon fii ci waañ wi ngir fas yéene dékk jëwriñ ji jiite waañ wi ay kàddu ngir mu fas yéene ñoo wax programme waañ wi ak ñoom nuñ ko programme ren ñu fas yéene ci ànd ak Serigne Ndonga Thiaw nga xamante ni waajuram moo fi nekkoon ak suñuy waajur ñun mu doon ay at yu yàgg yàgg yàgg yoo xam ni jiitu na suñu juddu te ginnaaw bi ay waajuram làqoo ba tey mu ciy def ay jéego yu am am am solo yoo xamante ni ba tey jii nii tànk ya ay waajuram taxawoon moo koy taxawee bu baax a baax a baax ñu fas yéene koo jox kàddu gi laaj ko ci ay questions yu tuuti rek sëriñ Ndongo ci asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi noo ngi lay nuyu di la siyaar di sant yàlla di julente Muhammad sallallahu alayhi wa di sant sunu wasila sëñ Mbaye Ndiagol bi mi may nu lii lépp mi nu defal xéwal yi yëpp waañ wi nag ñun noo ngi sant yàlla baax ndax xañ na waañ wi cosaan boo xoolee lu yàgg la ndax mën nañ waañ sunu waajur moo yoroon waañu sañ mbay bi mu fi jógeet waañu sëñ Cheikh ñu teg ko ci sama loxo ba sëñ Cheikh jóge fi sëñ Cheikh mun xalifaam teg ko ci sama loxo loolu ñoo ngi ci sant yàlla ndax yaakaar naa ni loolu kóolute la ak nit ki liñ ko def loo mu def ko nam ko war a defee ndax su fekkante ni sama waajur daaw ko defee nañ ko defe duñ ma ko jox may su fekkante nañ ma ko def loo defu ma ko duñ ma ko jox ñoo ngi sant yàlla bu baax nag di julli yonent bi sallallahu a ah waañu nag tubaarkàlla maasàllaa yëf yi lépp aw na yoon liggéey bi sell na rafet na ndax am nañ fi équipe yoo xam ne mën nañ ci suba ba tey démb ba nëgë ni ñoo ñoom fii waaw ku ne yaa nga taxaw fa nga war a taxaw ku ne yaa nga jàpp fa nga war a jàpp amul werante amul salax salax amul xuloo amul xeexoo ku ne fa nga war a taxaw yaa ngi fay taxaw liggéey bi nag boo xoolee ni maasaa rafet na suñ mbokk jigéen ñi gis nga leen ku ne la nga war a nekk yaa nga ca góor ñi ku ne la nga war a nekk yaa ca ba yàlla dogal na ah léegi xéewali bu soyaat léegi xéewali pare te xéewali bu paree dinañ fexe ba xéewali mel na war a mel ci sell ak neex na war a neexe ba ku ne mën koo jëfandikoo loolu nag doy na ak sant yàlla ndax mbooloo mu day nii nga dajale leen amul werante amul xuloo amul xeexoo amul salax-salax loolu mayug sunu borom la lépp nag mayug sëñ bi la rek moo tax ñoo ngi sant yàlla baax di sant euh, Serigne bay Ndiaye Gol mi nga xam ne mooy suñu wasila moo nu boole ci nii ndax lii dégg naa ba ko daan def bu jëkkan sama papa nee na ma moo daan yor micro moo daan toog ñu dar ko muy jàng-jàngi doole ñuy aw ñuy dem di dem di dem di dem di dem ba ay rajo di ñëw groupe bu jëkkoon ñuy dem di dem di dem ba yàlla dogal loolu lépp jóge fi xale yi fi nekk aw mag ñi des na ay benn benn mag ñoo xam ñu ngi leen di sant ku mel ne Pa mhm. ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla dëgër taxawaayam mhm. ndax mag mu ànd ak sëñ Mbay mu jóge fi mhm. nga ànd ak sëñ Cheikh mu jóge fi nga ànd ak gone yi kooku yaa ci yow la rek waaye moom bu fekkee ne du ci moom du mën a composé ñoom dañ koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam yokku wéram yokku manam Baye Mbaye wa daam ka saale ka na ko noonu jërëjëf ni yëf yi mel na ne yëf yi am na ak soppiku ci boo gisee diggante bi ñu wax comme kee daan dem bay jaan ko jàngal boppam ak léegi ndax mën nañoo xam ci gàmmu gi ren gi ñaata nag lañ fi tëral. waaw gàmmu gi bu njëkkoon mën nañ ni ca jamonoy sëñ Bay wenn nag lañ daan rey jamonoy sëñ Cheikh ñu daan dem mu ñuy rey yaare nag waaye diggante daaw jéeg ak ren at mu ne mën nañ dinañ fere lu mat juróomi nag te nayiñ fi rayit ku leen xool xam ne nagi qualité la ndax nag moom bu xaseera ci téeméeri junni rek kooku nagu qualité la nagu qualité na yu baax lañ fi rey yàpp yi xool nga ko ne tuwaar kala masala rafet na lool waa rafet na lool waa te alhamdulilah rabbil alamin lépp dina doy daal bu soow yàlla ci kàttu yàlla waaw waaw noonu la gisee taxawaayu ndaw ñi ak seen détermination ak seen engagement depuis ca suba ba tey huit ba tey ku gis ab ab ab taal ni mel xam ni neexut a toog nga toog ci wetu taal bi boole koo jant bi ko gis ko nga xam ne fan yi tàng na lool. nga gis seen engagement ak suñu jur jigéen ñoom ñëpp seen taxawaay ci waa ñi lan nga kàddu nga leen di ñaaxe ak ñeneen ñi nga xamante ni jotuñu woon a ñëw te seen yéene wala xëy na leneen moo leen fàng lan ngay wax ñooñu ak ñi ci nekk te jàpp ci yan kàddu nga leen di jox nga leen di ñaaxe ngir ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax a baax. waaw kàddu yu ba leen di ñaaxe mooy ñu gën a jàpp gën a góorgóorlu waaw ndax boo leen xoolee ni ni ñu mobilisé woo mm-hmm. àndandoo ren mm-hmm. nga xam ne mm-hmm. ku ne am na looy wut tayit euh, Baye Mor Sow dara wax ne mhm. kër sëñ Mbay Njaay mhm. lépp lu fi daay waay di wut mhm. na nga ko na nga koy amee ni ñu ni ñu engagé nag baax na lool ndax nee naa leen keroog mag ku dem mu dem ku demul mu dem te mag ñi dañu doon gunge yàlla dogal na dem na ñoo fi nekk ak yéen man mii di wax ak yéen damay dem ba mujj lii du ma ko man waa ci li ñuy ñaan yàlla bu amee du ma koon bu boobaa nag ñoom ñi fi ne wax dëgg jàmbaar lañu ni ma gisee seen i mbir fi mu toll ku leen bàyyet ñu mën a dem ak seen bopp am na ci ay jàmbaar yoo xam ne tubaarkaal ndax ren boo xoolee nii ñu engagé woo yombul mboolem ñi daan toog ci kër yi daan bañ a génn ñëpp génn nañ ku nga jàpp fa nga war a jàpp am na ci mbana yoo xam ne fi toll góor ñi ñoo koy togg waaw ñoo koy am na ci mbana yoo xam ne góor ñi ñoo koy togg te loolu lépp seenu njàmbaar moo ko war ak seenu nango wax dëgg yàlla équipe bi ma fi formé woon daal awma ci dara lu ma naqari awma ci dara loo xam naqari na ma dëgg ñoom ñi ngi waaw équipe bi ma bi ma formé woon mhm. awma ci dara lu ma naqari mhm. ndax ay jàmbaar lañu mhm. jël nañu seen engagement fi mu toll ni ma leen gisee bu ma toogoon ca kër gaat dara du fi yàqu loolu nag doy naa sant yàlla doy naa sant yàlla waaw mel na ni mbana yi tamit tuutiwut yi fi njóobee ni ndax mën nañoo xam exact ñaata mbana moo fi nekk ak mbana bu nekk ñaata kilo la war a soor waaw fi mu toll bu dee ci wàllu mbana yi ñaar fukki mbana taal naa ko mbana gu def naa ci vingt kilos ceeb boo xoolee muy quatre cent kilos quatre cent kilos ceeb danañ ko fi togg waa quatre cent kilo ceeb tey wax dëgg yàlla ba ne boo ko xoolee la ci ne ci ndawal buñ la ko waxee doo ko gëm doo ko gëm ndax bari na waa 400 kilos daal togg nañ ko fi am nañ yaakaar ne bu ci yàlla àndee lépp dina doy dina mel la mu war a mel waaw jërëjëf Serigne Thiaw jërëjëf ba ci kanam incha allah rabbi kon mooy kooku ngeen gisoon joxoon ko micro bi mooy Serigne Ndongo Thiaw moom moo jiite woon moo jiite waañ wi moo jiitee liggéey bi yëpp kon léegi comme noonu ni mu ko waxee sànq ci détermination ndaw ñi ak ñooñu te daanaka at yi daana waaye léegi dem nañ ba seen biir ñu bi ci ay groupe WhatsApp am ci ay ay kuréel ay yoo xam ni dañoo déterminé engagé wu ngir liggéey bi ba ñoo xamante ni ñooy ñoo féetewoo for mbuus yi ba fexe ba benn mbuus du des ñenn ñi ñoo féetewoo raxas ñenn ñi ñoo féetewoo café gi ñeneen ñoo féetewoo loolu lépp nag ab liggéey la boo xam ne yàlla lañ leen di ñaanal suñu borom subhanahu wa taala rek mu gën leen a kartanal ndax saytaane dafa am doole te bayiwut kenn te ci ndaw la gën a sawar kon ñu bëgg defee ñu jox suñu wayjur wu jigéen bi nga xam si ni moo jiite jigéen ñi mu sànni ci ay kàddu bismillah